والقلم وما يسطرون ما mbokk yi dañuy dem nag ba Fuuta fekki daara Alaaji Cerno mu di nag daara bu ràññeeku ci tund ba kilifa feeñal seeni mbégte liggéey bi am solo lool te ndongo yi liggéey ko ci ndimbalal C3S nekk na lu ñu biral ci seeni kàddu fa mashkurun antum aayata shukr fa nahnu kadalika nashkurukum li badlikum juhudan baligan fi intaaji hadihi shajarati almubaraka hiya shajaratun asluha thabitun fi samaa'i thabitun fi l ardi wa faruha fi lsama wa bifadlikum wa bifadli qiyamikum wa ijtihadikum wa barakati ma taqumuuna bihi li kitaabillahi inchaa allahu nahnu mutayaqinuun wa mutaakiduuna bi annakum satuhasiluuna ala natijatin inchaa allah ala natijatin kubra wa ala natijatin uzma marhaban bikum والله nga xam ne jëlee nañu ko ca daara Alaaji Cerno Samassa nekki noonee nag ñu indi leen kàddu ay seede yu bàyyee ko ca daara Alaaji Cerno Alioune Thiam di daara nag bu ràññeeku foofe ca tund ba kon kontaan nañ bu baax ñoom ba baax a baax qur'an noon fuɗɗino na nag alquran nag weetoon na koko mayno haalaaji nee na dafa deewoon ba mu jeex tak somin jiino onon bu mel nii taxaw di ko dundalaat eyyi eh, ɗum min belto heen kon loolu kontaan bu baax a baax ɗum ɗo weydi gila Serigne Touba en nee na lii géej na depuis Serigne Touba li nga indi fii la bindi ɗum si doomu Sénégal yi ñoo bind lii min puɗɗima wursude hankkadi léegi dundaat nañ nag min paami aduna o ndeke gasaani taw nee na yaa xam nañ nag addina bi des na sabi jaggi ɗo aduna nee na addina bi li tax demul rek mooy lii lii bu jeexee rek addina bi jeex na kon lii rek moo ñu téye fii tey lii buñ ko tuutalee wala ñu nu ne neenal ko mooy fe lu bi lañ lañ sa yi teddinoo ɗum ɗo waaye boo gisee ku koy jël nag di ko yëkkati si kaw on sa teddinaanima alam andam poɗa teddin woo teralul kooku xaw ma ngay teral yóbbalub daara yi ci li tukkee ci résultat jogante yaatal mbindum alquran te ñu amal ko daaw première édition ñu ngi koy wéyal nag ci këru daara yi. concours bi nag bi mu demee ci région de Matam ñu def ko concours régional mu concerné région wu maatam bi concours bi jeexee amaloon nañ cérémonie ka jiitu woon ca ñoom mi ngi amoon téeméeri junni ka ca topp ma nga am juróom-benn fukki junni ka ca topp mi ngi am ñeent fukki junni. loolu mooy concours bi nga xam ne yaatal mbindum alxuraan amaloon na ko ci région wu maatam ca deuxième édition ba. loolu mooy la fa xew kàddu yu am solo nag jib fa bàyyi ko ci kilifa yaatal mbindum alxuraan gannaaw solo si nga xam ne nag yaatal mbindum alxuraan am na ko ni mu taxawalee concours ci maatam noonu la taxawalee beneen concours ci yeneen i barab ci ay gox fii ci biir réew mi lu mel ni ki Tamba lu mel ni ki Ziguinchor lu mel ni ki Sédhiou lu mel ni ki Kolda lu mel ni ki maatam yooyu mooy barab yi nga xam ne euh, dama amaloon nañ fa concours bi ay barab yu wuute ay candidats yu wuute itam déposé bi ñu defee dépouillement bu njëkk ba tànn ci région bu nekk ci juróom-benn yooyu ñu tànn fa ñett nit ñooñu nag ñoo jongante ñu wowoon leen ci Ziguinchor ñu def concours boobu loolu nag ñu war leen a defal cérémonie ñoom it le 29 bii ñu jëm. parrain wu bis bi nag ñu ngi ko tuddee Alaaji Thierno Sama Sama mi nga xam ne boroom xam-xam la di kilifa diine ci maatam mu war a tombeek 29 janvier ci atum 2022 loolu nag mooy yitte yi nga xam ne yaatal mbindum alxuraan jugte na ko ngir wasaare mbindum alxuraan ci réew mi ba mu gën a yaatu waaye itam ba dongay alxuraan yi gën a yittewoo li nga xam ne moo di mbind in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu بنعمة ربك بمجنون